sa yitte wërta nekk maanaam xastante wala saagante wulla xuloo bay tuur deretu jàmbur ma njott ni ci réew mi nekk état de droit état de droit bépp sénégalais am na sañ-sañ fépp fu mën a doon ci Sénégal mu teg fa tànkam kon dama jàpp ni maanaam bu fekkee li xam ne moom la ñuy wax nii am na maanaam mu jóge ci Doudou ak ñu ñoñam jàpp naa ne jumte am na ci ndax kii ñuy wax Ousmane Sonko am na sañ-sañu dem fépp ci Sénégal Doudou li mu moom mooy këram lool nekk propriété privée mm. mais li ci kanamu këram mm-hmm. loolu espace public la te ku ne sañ na faa jaar ku ne sañ na faa taxaw mm-hmm. bu fekkee noonu la ame mm-hmm. ma di ko ñaawlu maanaam ñaawlu ba fam yem ngir dare di fi tuuru ci ay ñoo xam ne danoonu wala na ñoŋal maanaam ci seenub alal ci seenub der ak ci seen maître yow buñ la déggee ni ngay wax dafa mel ni Ousmane Sonko nga uh, àndal ci ci ci ci si si parce que parce que parce que moom uh, ba jëf yi amee mm-hmm. uh, ñenn ñi sax ñi ngi ñaawlu le fait que ñu accusé directement kii di Doudou Ka ñu bëgg ñu ngi jàpp ne dañ ko waroon teg ci wàllu ah, Doudou Ka ko ci yoon ñu bëgg jàpp ne ko waroon teg ci yoon mm-hmm. ñu leeral yoon leeral lu ñu mel mm-hmm. mais pas que moom mu yëkk yëkkati ay propos propos joxoñ baaraamu tuuma kii di Doudou Ka mais yow ñu dégg la ni ngay wax est que waroo woon rejoindre ñi am gis-gis boobu ci ku nga xamante dafa bëgg ne ëllëg li nga xamante ni moo di réew mi euh, apaisé mm-hmm. waaw en fait li ma wax wax ju leer la man ànduma ak Sonko Sonko nga ànd ànduma ak Doudou Ka déedéet ànduma ak Sonko mm. bokkuñu sax gis-gis mm. ci réew mi ni muy doxee tey couleur partem nga soldé Euh, xëy na daa tombé ay ay li naan li naan <laughs> tombé ay gaaf waaye li man a li li am solo bu am solo mooy mm. dama jàpp ni mm. maanaam réew mi mm. doomu sénégalais bu ne amul fu ñu ko war a yemloo mm-hmm. kenn ku ne sañ naa dem fu ko neex mm-hmm. l' mooy li muy def na dëppoog yoon rek mhm. tey jàpp naa ne Doudou Ka wala muy Ousmane Sonko mhm. bu Doudou defoon looloot nii rek lay analise bi lay lay am mhm. mooy jàpp naa ne buntu kër Sonko duuduka sañ na faa jaar sañ na faa taxaw sañ na faa wax sañ na faa jëf comme ni ko Sonko amee kon bu fekkee ci réew mi kenn ci ñoom dafa taxaw ci maanaam ci espace publique di wax xalaatam képp ku ko attaqué yoon war naa dal ci sa kaw ak koo mën a doon noonu rek laa ko nan la nga ko xalaat euh, di profité ci situation boobu. Mm. Euh, ci ni nga ko waxee nii. Mm. di wax Sénégalais ni leen nit ñi nañ am fulla am fayda. Mm. te bañ ñi leen di dugal ci loo xam ne nii seen bakkan xaj na ca wala ñu loru ca. kon da ngaa jàpp ni Sonko day dugal nit ñi. de néew mu dugal dama wax ni <laughs> xam nga man ki ma yar ci wàllu politique. muy docteur Aliou Sow. dafa fonk doomu aadama. est xam nga ni man bi may nekk université. bi ma njëkkee ñëw toog di waxtaan ak moom xamal lu ma xamal. demal nga jàngi. fexeel ba am li jaasa te boo amee lijaasa fexeel bu am foo foo xam yaay moom sa bopp mm. ci wàllu am am ak ci ko defee kenn du la diri mm. lii la ma waxoon tey yàlla suuturaal na ma topp ko man ak ñooñ ña ma àndaloon démb mm. te kenn ku ne ca ñooña réussir na ndax topp ko def ko mm. référence te kenn ku ko xool xamit moom it fa mu war a jaar jaar na fa lii tax mu wax ni politique ci Sénégal dafa war a jeex ñu utiliser doomu aadama yi maam def leen ni effectivement donc ay ñoo xam ni dëppoowul ak li xam ni moom waaw moo tax man la kon ndax da nga jàpp ni euh, kii di Ousmane Sonko euh, di ni ñoo ko topp néew dama ni ci poli dama wax de façon générale. mais ci moom mais wax. mun nañ ko mun nañ ko mun nañ ko mun nañ ko indi ci moom. xalaatewuma ko noonu. Ah. li ma wax mooy saw Sonko ak ku mu mën a doon ci réew mi. Mhm. maanaam di dagaan baatu aska wi ci wàll wu mën a doon sañ na dem fu ko neex wax la mu xalaat. Mhm. dëppale ko ak yoon. Mhm. loolee nag bu koy def ak fu mu ko mën a defee ci réew mi kenn amul sañ-sañu attaqué ko ku ko def yoon laa war a teg loxo teg la ay daan ba ñëpp teg ci bët ba xam ne lii dañ koy tere ci réew mi bu nekkoon keneen ku moom it mm-hmm. nii rek laa koy xalaate mm-hmm. d'accord waaye nag sénégal yi xam ne ñoom lu plus souvent ñooy payer les pots cachés mm. ñoom laa ne ñoom seen bopp nan am ful la am fayda mm. di bañ ñu leen di entraîner mm. ci situation yoo xam ne nii da leen di jural ñu loru ca wala effectivement seen deret di ca tuuru d'accord ba tey euh, ci euh, ki di leaderu Pastef bi la ñuy euh, taxaw def def taxaw seetlu mm-hmm. ñu gis ni tamit li nga xamante ni mm-hmm. moo di dossier bi ñu ko mm-hmm. tuumal wàllub sàkkuteef diggante mag Adji Sarr mu ngi toujours en cours xamaguñu fan la wànneen di mujjee ki gëtam mm-hmm. euh, mais ñu ngi jëm ci ay élections locales mm-hmm. naam nag xamaguñu ndax am Sonko moom bëgg na mm-hmm. nekk maire am déet waaye li wërte woo mooy bu keroogee euh, présidentielle atub 2024 amaana dina sampaat nëndam comme ni mu ko defee ci élection yu wees xaw ci am nag taxawaay bu am solo ba tax yéen ñëpp ngeen koy bàyyi xel guddi gi moom moo leen tere nelaw <laughs> euh, mais ci loolu metre ma sama laaj fi ma koy samp mooy ginnaaw ba dossier mi ngi en cours casier judiciaire am am te leeragul ndaxam moom dina mën a présenté wu waaw ba fii may wax ak yow mm. ci réew mi xam ne moom lañ Sénégal ni ñu ko tënkee mm. Sonko amagul benn daan bu tegu ci ci ci ci wuloosam mm. maam casier judiciaire na meloon démb noonu la mel tey dañ koo tuumaal mbir dañ wax ni danoo njortu ni dafa sàkku jigéen ci anam boo xam dëppoowul ak yoon loolu njortu la ñu tuumaal ko ci ñu ubbi une information judiciaire dénk ko ab magistrat koo xam ne xelam dafa màcc ci gëstu lu ni mel ngir mën a wan doomu aadama yi kii liñ koy tuumaal am na wala amul ñu jox ko ay jumtukaay jox ko ay sañ-sañ loolee en cours nit ñi amagun ci lu leer tant que amul une déclaration de culpabilité kenn mënta tuumaal ni liñ koy tuumaal moom loolu am na wala am ba fii ñuy wax ak yow moom ak koo xam ne nii ma ngay soog a juddu ci réew mi ñoo yam ci casier judiciaire amul dara lu takk ci casier judiciaire ci wàllu li mel. mais bu ñu yeewoon loolu kon mënut a yàq dara ci élection yi xam ne moom lañ dëpp man. d'accord mais su fekkee ni dossier bi ubbiwaat nañ ko ni euh, ni ci euh, fan ñu dëgmal wala ci weer ñu dëgmal laataa ñuy yegg ci élection locale yi mm-hmm. euh, dossier bi nekk en cours boobaa su dossier bi xasee ba nekkaat en cours rek. Mm-hmm. dina mën a présenté wu. Ah, waaw bu baax a baax a baax. Mm-hmm. day mën a wëyal ab liggéeyam. xëy na mën na koo gàllankoor ci ni muy na mu war a doxe parce que ngay ne ci wàllu maanaam euh, wut di sàkku di dagaan bat askan bi mm. ñu boole kook di lawoo woo suba ngoon guddee bëccëg tribunal mën naa tax la nga war la nga bëgg a def mm. doo ko def ci anam ba nga ko ba nga ko ba nga bëggee loolu waaye ci wàllu loo xam da koy impacté pour mu bañee doon candidat wala effectivement donc lu koy yàqal ci candidature amu ci ndax ba fii ñu wax yow nii il bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence xam nga ci réew mi maanaam buñ la tuumaal dañ jàpp ni liñ lay tuumaal dara amu ci lu dul juge maanaam statué wane ni kii kat liñ koy liñ koy toppee ginnaaw bi ñu ko saytoo dëppale ko ak yoon jàpp na ni liñ koy toppee moom moo ko def te loolu amagul information bi tàmbaleegul lool. ba man ba mën a xam les responsabilités. d' accord euh, mhm. euh, ba tey ci wàllu ci wàllu wu ni mel. Mhm. ñu gis ni tamit euh, bon selon les euh, rumeurs. Mhm. que ni dossier bi dafa nekk dossier bi nga xamante ni. bëri na ay say naataango yi nga xamante ni ña nga ci tribunal. bëgguñu koo jël. ndax dañ koy xaw a ragal ginnaaw ba ñu gisee ki nga xamante ni moo ko yoroon. génn ci àddina. ñu bëri jàpp ni dafa am aspect mystique bu ci laxasu. loolee dëgg la wala. waaw loolu xam nga duma ci mën a dama ci mën a sori. maître nag da ngay bàyyi bu ñu la laajee dara nga ne <laughs> nga ne loolu mun ma ki sori yow yaa ngi nekk ci biir tribunal ba xam ngeen am am ngeen écho am ngeen mais déglu mais mais maître yéen am ngeen am ngeen peut-être yëg ngeen lu bëri lu nga xamante ñi toog ci biti mm-hmm. mënuñu koo yëg Mm-hmm. ndaxte yéen a nekk ci biir te yéen a déyante ci lu bëri ku ne xam na ne avocat moom mm-hmm. euh, ñoom ils sont tout temps solidaires te mm-hmm. donte ni nag euh, mun nañu am ay divergence euh, ci seen ay clients mais terewul bu ngeen paree ba génn ca loolu ba simmi seen li nga xamante ni moo di seen bubu avocat bu ngeen toogee yéen ñëpp yéen a far donc loolee am nga ci am nga ci am nga ci ay économètre d'abord sa li may tàmbalee mm. mooy man ko xamoon la ràññee juge boobu di le doyen Samba Sall Samba Sall yal na ko yàlla xare ak nekk nit koo xam li ma xam ci moom mm. mooy ànd ko yar ak i teggin ak dal ak xam-xam loolu moom mën naa koo mën naa koo seede ndax fekke naa ko ba tàyyi mm-hmm. sekk ak moom ay dossier mm-hmm. mu wax ma dégg mu jëf ma gis mm-hmm. te fekk naa ko ba tàyyi muy julli ak a werd kon kooka njortu lu laa am ci moom ah bakken nag ci loxob yàlla rek la ne yonent bi salaay salaam yàlla du ko wax ni ko ñett yi ma ko kenn joxlu ma ko kenn muy man ak tel man ak tal yàlla du ko téel boppam maanaam bakken yàlla rek ko ko maanaam génne moo ko mën a génne waat ci doomu aadama waaye njottu ma ni def defab doomu aadama mën na koo indi moo tax ma njott ni xëy na dafa tombe maanaam ci jamono ji ko yàlla war a moome dossier bu mel noonu dugg ci loxoom waaye njortuma ni lu ni mel moo sabab ak génn àddunaam man ci sama xalaatu bopp ndax ab jullit la te gëm naa ni dund ak dee ci loxob yàlla rek la nekk waaye nag dossier bi xam ni mooy bu sonk bi ci dans la dans la dans la perception populaire nit ñi njort nañ ni xëy na dafa am mystique. Mhm. mystique c'est une réalité africaine. Mhm. lu xam la. tam tam ne fi. gis nañ ni nit ñi am nañu njortu ni. maanaam pouvoir mystique yooyu. mën naa dem sax ba may maanaam ki xam ne cib jay. maanaam bakkenu doomu aadama wadd ca loolu njortu la la. Mm. waaye man li ma gëm. Mm. mooy bakken moom ci loxob yàlla rek la ne. kon ñi nga xamante ni ñi ngi véhiculer. Euh, yooyu tee nag ma xamal la ni la. Ah, mm. du tee dossier boobu. Euh, dina am ñu ko yor. doxal ko la ca war a ne ñu xam nga ni nga waxee nii xam nga kon yow dèjà man njort naa ne yow am nga certitude sax ni mm-hmm. euh, wala boog. xam nga sax dossier boobu kan moo ko war a yor si jamono bi ñu dëgmal. non am certitude mais damaa xam nga ci dañu ne ci maanaam.